jërëjëf Mamran ci question bi nga laaj ku mu jëm ci wàllu hémorroïde ak ndoxum siti nga xam ni ñoom ñoom ñaar dañu bokk ci ndeyu feebar yi daanaka feebar yu bëri bëri bëri yi nit ñi am dafa laxasoo ci diggante hémorroïde ak ndoxum siti kon ñun am nañu traitement bi nga xamante ni dafa boole ñaar yooyu traitement bi xam te ne day faj hémorroïde en même temps day fajaale ndoxum siti ndax ndoxum siti moom boo ko seetloo ba ci biir ñi ci bëri ci nit ñi dañ ko am seen yaram yi day tàng day xasan bu ñu duggee ci douche ñu sangoo ba pare sax seen yaram yi day fet-fete loolu yëpp ci ndoxum siti la laxasu ak la tënku te bare na ay couple yi nga xamante ni moo leen tere am doom ci góor ak jigéen góor ñu bari seen ndoxu sëyukaay dafa woyof boobu ñu sëyeeg seen soxna war a am doom war a am njaboot bu ñu mën a am njaboot normal ndax ndox bi dafa woyof ndax ndoxum siti moo koy waral am na ci jigéen ñi nga xamante ni itam ci seen biir la nekk ndoxum siti bi dafa leen di jàpp day dem ba laal fibrome ñenn ñi dafa def leen trompe yu bouché ñenn ñi ci des mu def leen kyste kon nag euh, traitement boobu dañ koy def fii ci Guédiawaye arrêt du Balès kër Serigne Bara Fall كيب كو سوخلا تريتمان بي ريك مون نانيو بايل فوكال واتساب سي نيميرو يي ني بينت دا نانكو تونتو واخكو نان لا اك ناكا لا فان لاي مانا جار با نيو تريتي كو ان شاء الله مان سما نيميرو ديريكت موي 77 169 45 45 ماغي دماندي ليپ لوماي واخ كيب كو ما انتريسي جيلال نيميرو بي سيل فو بلاي بو ووتاي تيم امانا دومو جوت bayil ma vocal whatsapp dina la deglu dina la tontu febar bo mo meunti wax dina la indil ay solution wax la nan lañu mën def ba jappal la ci sa maladie bob muy traitement complet bi nga xamanteni moy fac ndoxum city en même temps moy faj hémorroïde lu koy faj ci biti lu lu nëbbu ak lu feeñ ndax dañ la ci mayaale sax ay ñaan ci walu ngelaw seytaane ñu bari seen feebar affaireu seytaane daf ci laxasu mais tout d'abord dañ koy set maa ngi demander nag solennellement képp ko xamanteni ni soxla na ko jaru sax mu may laaj prix bi dañ koy consulter ba pare bàyyil ma vocal whatsapp wax ma dama ko bëgg ma wax la consultation bi ni muy demee nuñ la koy seetalee consulter la ko ba mu leer bu ko defee su leeree ba nga xam nan la ak naka la boobaa mën nga déplacé wu ñëw géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Bara boo ñëwee incha allahu rabbi ñu mën la defal traitement bi wax la nu muy demee incha allah kon képp ki nga ni soxla na ko rek li ma gën a intéressé naa ko seet ba xam nan la nekkee sa yaram ñenn ñi daf leen di téye ñu teew am doom ñi ci des daf leen di téye ci seen ngóora ñi ci des daf leen di ci seen kattan ñi ci des daf leen di téye ci seen sëy seen njur ñi ci des dafay def seen yaram i we i bët ñii silmaxa nañ sax seen bët yi sax dem na ba jàppaleen ba bu ñu demee hôpital dañ leen di wax dañu am glaucome ñii ñu wax leen dañu am cataracte te fekk ni ndoxum siti mooy li ko waral am ñoo xam te ni dem nañ ba am mauvaise haleine am xeetu gémmiñ buy xeeñ loolu yëpp mën nañ leen ko fajaaleel ba mu dañ kon képp ki nga xamante ni daal soxla nga traitement yi incha allahu rabbi xefe ñoo contacter bàyyil ñu vocal whatsapp ci 77 169 45 45 77 169 45 45 bu dee spécialement da nga am ndoxum siti nga leeral ñu ko bu dee spécialement da nga am hémorroïde nga wax ñu ko daañu la ci indil ay leeral bépp cause bi nga xamante ni ndoxum siti ak hémorroïde causé na ko comme ni mu ko limee sànq danañ la ko fajal ba mu daj conséquences yi mën a indi itam bëri na day jur conséquences yu bëri ci wàllu tële ci wàllu am doom ci wàllu yàq sax yaram def la ay mauvaise haleine def la ay gàllankoor yeneen feebar yu bëri yu nit ñi di tudd loolu mooy li koy waral kon képp ku ci nekk rek daañ la ci mën a dimbali am ñoo xam te dem ba def leen sax yax yi metti ñu am problème mu neer am ñoo xam ne dafa leen def ndigg bi metti ñu am problème mu hernie discale am ñoo daf leen def yaram buy tàng am ñoo xam daf leen def sax problème mu rhumatisme te en général ñu mel noonu bu ñu ñëwee ñu jox leen traitement ndoxum bi définitivement mu dañ waaw définitivement day dañ carrément am ñoom te ne dem ba am problème mu goitre am ñoom te am problème mu amygdale am ñoo xam ne leen def bopp yu métti ndoxum siti bu la jàppee mën na la def bopp bi métti mën na la def bët yi lëndëm mën na la def sax nga am sinusite wala nga am asthme loolu yëpp dans la consultation incha allahu rabbi dañ leen ci dimbali ba mu dañ képp ki xamante ni yaa ngi am jafe-jafe yi may wax ci wàllu asthme ci wàllu mm, sinusite ci wàllu problème mu goitre ci wàllu daal ak problème mu respiration poumon respiration dënn loolu yëpp ak problème mu biir bi metti am ñoo xamante ni biir bu métti bu métti leen def def leen genre hémorroïde dañuy constipé dañuy serré am ay ballonnement de ventre seen biir yi day def ngelawal mu leen di téye ñenn ñi daf leen di ci seen sëy ci góor ak jigéen am na jigéen ñoo xamante ni amuñu bànneex ci sëy maanaam dañuy dem ba frigide dootuñu am bànneex dootuñu am plaisir jigéen ñi dul am plaisir ci sëy yëpp lu ci ëpp ci seen cas affaire ndoxum siti la kon traitement complet bi nga xamante ne mooy faj lépp lu jëm ci hémorroïde lépp lu jëm ci wàllu ndoxam siti bàyyil ma vocal whatsapp ci 77 169 45 45 77 169 45 45 mooy sama numéro personnel et direct képp ki xamante ni moom lañu yàlla booleel nag ci njekk ci teranga ci sutura daañu la dimbali incha allahu rabbi boo ñu bàyyilee sa message vocal whatsapp kon maa koy ñaan ñëpp ci 77 169 45 45 sama numéro secrétaire mooy 77 160 93 93 77 160 93 93 mooy sama numéro secrétaire am na beneen di 77 646 41 21 yooyu samay numéro secrétaire la incha allah képp ku ma faj émorite wala ndoxam siti danaa la mayaale ay ñaan gratuitement doo ci dara dañ lay may ay ñaan pour cat lépp nekk ci alxuraan cat làmmin rab jinne ak seytaane mayaale la ay ñaan ak bayre ak sa liggéey gën a dox sa wërsëg gën a ubbeeku ta nga am luy tokk loolu dama koy def addi Serigne Touba ko xamante ni jënd nga traitement hémorroïde wala ndoxum siti dinaa la ko may defal la ko addee sëñ Tuubaa pour cat pour lamine pour rab ak jinne ak seytaane waaye nag ci kaw nag nga jaar ci bunt bi bunt bi mooy cent 77 169 45 45 soo fa bàyyee sa message vocal whatsapp wax fa sa soxla incha allahu rabbi dinaa la indil ay leeral ci sa hémorroïde wala mu indil la ay leeral ci sa ndoxum siti wala mu indil la ay leeral ci sa jabet wala mu indil la ay leeral ci sa méttu ndigg wala méttu tànk wala ci wàllu am doom wala ngay sëy mënoo am doom wala ñàkk jubo ak sa soxna yooyu yëpp dañ ciy liggéey ñi nga xam te ne dañu am ay goro ak ay njëkk ci biir kër yi te mënuñoo juboo lépp lu ñuy liggéey nag bala ñu koy liggéey dañuy def consultation d'abord seet ko may la ci ay ñaan ba lépp xéwalee lépp daal dee taw feexe incha allah